Uras Info Ribari Gao. Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat yu notre force le traitement de l'info Serigne Boub di candidat ci mairie bu Kaolack candidat wu coalition bi ñu tuddee ànd nawle ànd suqali Kaolack di dagaan baatu askan bi ci jamono ji nga xam ne ñu ngi nekk ci pré campagne électorale bu élection municipale yi ñu jëm muy wër këru diine yi di saafuwante ñoom waaye di dagaan itam ay baat ci loolu nag mu ngi ci dëkk bu sell bii di Medina Baye gannaaw bu ñu gisee Cheikh Mouhamadul Amine Cheikh Ibrahim Niass dem seeti ko ci këram gi ci Ndorong sol na aw dàllam di wër këri diine yi ak kër yu mag yi nga xam ne ñu ngi ci biir Medina Baye Oustaz Barham Diop naka noonu itam dem na kër Cheikh Hassan dem dajeeg doomam ji ñuy wax Cheikh Abdoulaye Hassan dem ci ndaje mi nga xam ne am na ko doomi Oustaz Barham Diop ji Moustapha wane na ne bu ñu amaan candidat boo xam ne dafa nekk candidat à sa propre succession da nga koy gis muy def bilan dañoo am candidat boo xam ne mun nañoo wax ne yàlla moo ñu ko tànnal ci waxinu Cheikh Moustapha ndax candidat la boo xam ne li mu def nit ñi gis nañ ko kon moom mun naa def bilan ci li mu jot a def. am ay candidats yu ñëw. alors di di proposer ay programme nit ñi di natt ndax programme bi ngay proposer ndax sa expérience sa xam-xam ndax sa jaar-jaar àttal na ko waaye tey jii bu njëkk parti bu njëkk bi amuñ ko dañoo am rek ay candidats yu ñëw taxaw donc ñun ñu war a am xurree war a am tam fulla tànn incha allah loo xam ne nii war naa au moins une fois defal ñu benn jéego boo xam ne jéego bu rëy lay doon bon xam naa ne candidat bu nekk xëñ na am na loo man mën naa am tam sax réellement am na loo mën euh, candidat bi laajuñ ko bilan programme lañ ko laaj waaye nag yàlla dafa def euh, président Serigne Mbu mën a présenter bilan présenter ko mën a présenter programme présenter ko loolu en fait chance la alors su fekkee dénk nañu la dara ci sa kër nga doxal ko ba ay centaine de personnes di ci jëriñu nga am vision ci CCBM euh, holding wala wala yeneen yëpp niñ ko xamee nga dawal vision bi ba àdduna yëpp di ci jëriñu ay junney nit xawma kan moo am xelu indil ñu ko ci chambre de commerce yàlla na ko yàlla fay ah mu développé ba ñun ñii nga xam ne duñ commerçant sax ci lañ xamee luy chambre de commerce bu njëkk moom commerçant rek a xamoon luy chambre de commerce alors kooku su demee ba xalaat ne moom am na beneen escalier bu ñu war a yéegee ci maire bi peut-être bëri nañu fii am ñu compétent peut-être nit ñi li ñuy wax mën nañ ko waaye xam naa suñu demee bay tànn suñ tiimee ki nga xam ne nii nee na mën naa def naa mi ngi nii suñ amee keneen yàlla na mën xayru xayrun waaye nag tànn bi warta jafe Kaolack am nañu occasion boo xam ne daan nañ ko sax faral di am waaye yenn saa yi dañ daan sàggan ba mu rëcci leen waaye moom daal jàpp na ne candidature Serigne Mboup bi occasion la boo xam ne warta rëcc ci Kaolack te Kaolack war nañ cee yeew bu baax. ndax defaroom gi ci nga a defaru yow. Mm-hmm. ñun ñu xale ñun xëj na liñ soxla bëreetut waaye nag soxla nañ éducation pour suñ doom yi soxla nañ ñun màgget yi di faju am faju bu xaw a tane maanaam dañoo soxla Kaolack dox ba ku yëngatu dox Kaolack dox ba ku feebar doo tiit foo jëm Kaolack dox ba ku ku am sa doom doo seet ban école nga koy yóbbu ci ban dëkk maanaam Kaolack yëngatu paa ñun ñu yëngatu <laughs> Kaolack yëngatu ba suñu yëngatoo mën ci yegg suñ bopp loolu nag vraiment ci ki nga am expérience def lim xam bañ teg sa bët moom lañ yaakaar euh, sëriñ du gudd moo na nga gën ci Kaolack euh, président Serigne Mboup jël kàddu di ko tontu di sant yàlla ci ziar bi mu def kër Oustaz Barham Diop di wax itam moom modèlem ci Kaolack mooy Cheikh Ibrahima mi nga xam ne fu mu demaan ci àdduna bi al Kaolack yi lay signé waaye itam naka noonu wane itam ne moom li ko tax a ñëw Kaolack gannaaw càkkutee fi yenn commerçant yi pour mu jël chambre de commerce bu Kaolack man ma len amal ngeureum toujours du ko wax seug man am ngeen ko wax ba ma fay ñew yow laa fekkoon ñu ñett ñu ñàkk fa nekkoon nañ fa doon wax yépp ñoo fekk mm-hmm. la ngeen ma diggal lepp yeen mako diggal bu mm-hmm. ngeen ñewon ne ma jakk ji lañ bëgg ko ñu ko defal wala terrain football bi lañ bëgg ko ñu ko defal tamit xeyna suma jëf fofu may jëm kon dama leen di sant lool waye limay wax fi rek moy ñew gi ma ñew fi wa nuy firne lu bari rek ndax ñun bi ñu nekkee kooku di jàng ñaari waxtaan lañ daan déglu yu am solo nekk xale di ko déglu ay waxtaan Oustaz Barham naa ñoom ñaar ñëpp xam ne fi lañ hmm. waaye dañ daan toog sax ñun ñi daa nga ndongo daara di toppandoo kon xam-xam dëgg la hmm. kon tey bu ñëwee fekk doomam fii daanaka du ñu du ñu waaye li may fas yéene li may dalal sama xel mooy sama xel dana dal ndax ku mel ni yéen ñaar ak Baye Mbaye mi wër ma pour ëllëg ñu ne dañoo bëgg a yëkkati doomu daara dañoo bëgg def daara xanaa loolu moom sama xel dal na ndax su ma mel leneen tamit danañ mën a waaye ci biir développement am itam mu wane ne maire ci dëkk moom la ñuy tuddee premier magistrat de la ville magistrat nag su fekkee mënul plaider aw askanam mënul leen a défendre juridiquement kon daanaka jarul muy nekk magistrat kon loolu moo tax moom itam fu mu toog ci kanam état fu mu toog ci kanam ay autorité moom dafay défendre Kaolack te jàpp na ni itam Kaolack li ko manqué mooy leadership leadership boobu nag moom jàpp na ne su ko yàlla joxee dëkk bii di Kaolack bu boobaa moom dana mën a imposer leadership am pour lépp loo xam ne Kaolack war na ko jot ci xàq wala ci yelleef Kaolack mën cee jot wàllam bu politik rek dëgg yalla politik rek ma bëgg fu moko défé defee mën ko défé Dakar du ma ci sonn su ma dugg suñu ko waye fini ni nii wacc wàcc wacc wàcc wacc wàcc kanaw ñoo nak wax moom ko jaram ak condition yu compliqué ndax yow xamoon nga ni waxon nañ fi bané sëriñ bu ñemewut ta wax candidat mu nekk candidat bu ko Macky Sall woowee dana du nekkal ci loolu rek lañ doon liggéey ndax xamoon nañ ne ah yàlla dimbali na ma ak ñi ma àndal amal nañ njëriñ dëkk bi ba ñëpp wax ko man Sall sax wax na ko keneen wax na ko lay Wade wax na ko keneen wax na ko waaye boobu dañoo xamul lan moo nekk ci ku daara yëpp ak ku gëm ndax teewul ma ki na ma ci objectif boobu ah daf maa jaral ndax mën naa ko wax fii yëpp dégg ko dama ne man tey jii buñ ma nee sëriñ bu Macky Sall woo na ko ne ko bul nekk candidat nekkatul candidat est ce que man danaa jarati dara kawal ko lan la nit ñi wax mu ngi ci ay looxar yoo xam ne ni ñëwul Macky Sall te loolu lañ doon wax wala ah jox nañ ko dara lu mu jaayee ñëpp kon tey jii looloo fi am est ce que loolu wolof day wax rek alal du faj dee gàcce lay faj mm-hmm. est que gàcce boobu te noonu laa ko waxee nga gatch bobu man man nako support support lo ko sumay do kon baye rek ma dem ñaanal ma la mu nangu and ci man man rero wul ci lu bari ci walu sama gis-gis sama gis-gis ci ni ñuy de ci ni ñuy rero wul waye gis-gisu parti dugg ma ci ndax mu toog ak moom du wax ak moom waxu politique politique naa fu ma toogee moom nan la ñuy wax mooy nan lañ mën a defee ba Kaolack taxaw bu dee aérodrome bii wax naa ci ba tey bu dee nan lañ mën a defaree Medina Baye wax naa ci ba tey bu dee lan lañ mën a defate ba daara yi taxaw wax naa ci ba tey taxaw naa ci dox port bi wax naa ci ba tey yooyu wax naa ci ba tey xëy na dem dem nañ ci jéego waaye li manqué mooy vrai avocat parce que bu ñuy wax maire dëkk mooy le premier magistrat magistrat mooy ku taxaw dëkk bi loolu lañ koy tudde mooy premier magistrat premier officier d'état civil su fekkee officier d'état civil saa yu ñëwee ci juge bi di ko di ko ne ko bi da koy wax waxi boppam dëkk ba du gaaw baax te loolu nag laa seetlu ndax man musuma fee ñëw Macky Sall ñëw fi recevoir bu njëkk dama doon jaa jaaxle sax naan budget waaye budget mën naa génn ci dëkk budget bu doy sëkk bu defar dëkk lu mën na ciy ndax nit ñi ñoom amul ndax liñ tabaxee seen kër état jox leen ko li ñuy dundee état jox leen ko waaye loolu li war a defar dëkk bi asaka ci asaka la ci loolu asaka loolu waaw kon nag ñu ngi sàkku ñaan rek ñaan ñu jàppale ñu tamit jàppale ñu ndax wax ji seytaane da yàq da yàq nga dégg fenn ñu taxaw ne ay daara lañ mu ñu yor waaye ñun de liñ yor ñu leen gën a foog ñi ngi toog ñu leen di fay salaire ñu ngi liggéey te ñoom ñëpp tamit taxaw nañ jàppale nañ leen amul kenn ci ñoom ba ci meer bii jaaxle na ba tey ñu jàppale ko jàppale ko chambre de commerce ba ci maire bu ñëk ba ma jey ne keroog ba marché bu ñëké lakk fi ñom ñëpp dañu jaxlé chambre de commerce moko absorber absorbé ko ba ciow jógul ba ciow jógul bari na yenen ya yeneen ak yeneen ah kon loolu buñ ko waxee buñ bëggé duggal ni ci mbir tariixa dama yaakaar né ah ab tubab sax bu dëkk bi na am cër bu jox ba mel na bay té ñun c'est pas par ba bañ koy def sax dañ naan ah, Médina Baye dafa am cër bi dañ doon seeti compétence rek hmm. biñ paree ci compétence daanaka sur les cent trente personne yi vingt et un fii lañ jóge hmm. vingt et un sur cent ko par rapport ak quartier yi nekk Kaolack yëpp te jóguñ ci woon wallaay jóguñ woon parce que dañ doon jóg naan na Baye compétence lañ doon seet kii war naa mën a nekk nii Baye Mbaye mii mi ngi woon war na jaabal nekk sëñ mën a amin mii mi ngi moom sax dañ koo saraxu pour mu mën cee bokk waaye bokk gi ndax li tax man ma soxla ko mooy wóor na ma ne su ma bëggee def lu dëgg dana ma ne lii du dëgg moom faalewu ci dara loolu xam ngeen voilà ak ñeneen nag ñeneen ñi ci bokk yëpp ñoom alaaj si Omar Thiam ñëpp kenn ku ne yaa ngi def sa loolu kon xam nañ ne moom sëñ mën a amee fu mu nekk rek yaa fa nekk ndax yéen a bokk yëpp kon daal ñu ngi sant di gërëm euh, di gën a leen wax ñun ñëpp daal nañ engagé wu ndax li nga wax moo am solo Kaolack mi ngi doog di taan waaw mi ngi dog di tan dawul tan mhm. indépendance ba musu mhm. ñu dañ nan parti bi rek même bu opposition bi gagné won taw ñoo majé na parti bi tànn waye bi nak mom ñun dañoo téla xam loolu dugg ci benn parti suma bëggoon parti suma néwon benn bokk yaakaar seen parti la bëgg ñu jox PDS ñew nañ ci man négociation ci guddi na ma yoon seen parti parce que bi yenu askan yow nañ ci man waxtaan pour ma man ko yor ma man ko jël mais yooyu yépp ak yeneen ak yeneen bokk gis yépp mais dama xool ne suñ bëggee dindi luy conseil municipal ñu bëgg wax ne ni la conseil municipal tëddee moy ñun nañ jël ne suñ parti moy Kaolack nañ ci boole ñëpp nañ ci boolee ñëpp ëllu buñ toogee fenn di waxtaan danañ waxtaan lu jëm ci Kaolack dañ waxtaan lu jëm ci kenn ku ne nak fa nga bokkon wala dara ñang lay mere waye inshallah ni fexé ba gañee rek buñ gañee rek yaakaar naa mere bi dina mere mere bi recevoir na man rek say yu ma recevoir la gis na ñu bari ay benn benn ay dugg rek wax seen soxla dëgg waaw kon nag maa ngi gën bi mu demee ci kër Cheikh Abdoulaye Hassan dem naka noonu sëriñ bi dalal na ko moom itam mu nuyu ko saafuwante ak moom gërëm ko njukkal ko ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def waaye sëriñ bi itam ci ay déclaration am mu sant yàlla ci candidature sëriñ buub parce que ñun ay liggéeykat lañ transport dugg nañ ci dugg nañ ci mbay daan fay ay ñeent fukki nit yoo xam ne ay camion lañ amoon di dem Mali di ñëw ñu ñu dugg ci mbay yooyu yëpp pour jël ay xale indi leen pour ñu jàpp ci dara di liggéey la te loolu gis nañ ko ci yow am nañ yaakaar bu baax ci yow ci loolu li ñuy ñaan kay mooy comme li Cheikh wax rek responsabilité bu diis la Kaolack dafa yàqu politiciens yi fi jaar yëpp dañ yàq Kaolack yàq jikko yi gëmloo wuñ leen lu dul leen di jox xaalis jënd seen jikko moo tax sa tur boobu ba ma ko déggee ànd nawle ma ne kii moom moo war a defar Kaolack parce que nit ñi soo bëggee ñi ñi ñi ñi gëm liggéey da nga leen oo ci ay nawle lañ nañ toog ci taabul nañ waxtaan suñu waxtaanee naka lañuy defaree dëkk bi kooku yaakaar naa ne bu la wooyee kooku moom nga war a ànd ak gis nañ li ngay liggéey gis nañ li ngay dimbalee famille fii nag man ci koñ bi laa dëkk ak saam waaye képp ku ma toog ak wala ñi may dajeek dama leen di laaj waaye yéen kan ngeen di kan ngeen di jàppale waaye sa tur rek lañ may wax. sëriñ bi di Cheikh Abdoulaye Hassan dem wane itam cofeelam ci Kaolack ak itam jafe-jafe yi nga xam ne rek xolam a ngi ciy métti ci Kaolack ci ñàkk bi nga xam ne ndaw yi ñàkk nañ ko liggéey naka noonu taataa yi nga xam ne mu ngi am ci Kaolack naka noonu itam ñàkk structure de santé yoo xam ne askan wi mën nañ ci fajoo. waa bi yow la parce ñoo xam ne dañ lay dégg rek boo leen laajee kan ngay woteel ñu ne leen sëriñ buub ma xam ne kon yaakaar gi ci yow la nekk yaakaar googu ñu am yaakaar ci yow yal na ko yàlla dëggal yal na yàlla may la ndam lépp looy ut ci pour defar Kaolack suqali ko fexe dëkk bi am sécurité Kaolack sonn nañ amul sécurité ñun ñiy dëkkee fii xam nañ ko dañuy jël ay gardien yu bari dégg nga bu tawee suñu fii yëpp dafay am ndox ak saam man wax naa ne ne di jox waa Kaolack yi xaalis sax da leen yàpp parce que Kaolack liñ so li li leen gën a sonal mooy ndox mi yàq seen mbedd yi dugg ci seen kër yi xale yi jeunes yi war a liggéey war a takk jabar wala taxawaw seen way jur yi war a faju surtout faju zaat mu joxe ci misaal boo xam ne doomam moo feebar mu téye ko guddi di wër hôpitaux yi gisul benn hôpital boo xam ne mën naa jël doomam ba doomam jooju noonu la faatoo ci ay loxoom ci noonu mu am yéene ne moom dana liggéey ci àddunaam loo xam ne dana mën a taxawal hôpital bu baax ci kaw la ngir askan wi mun di ci fajoo. suñu hôpital yi sama doom def fi feebar guddi ma gàdd ko nii wër hôpital yépp hôpital boo dem mu mu tëj ba noonu la gaañoo ci laa wax ne man sama dund yëpp dinaa ko liggéey pour taxawal fii hôpital boo xam ne damay dimbale nit ñi li may liggéey yëpp maa ngi rêvé pour tabax fii hôpital boo xam ne li ëpp dama koy maye pour nit ñi di faju parce dama xam faju ñun ñun ñun ñun jafe ñun jafe kër goo dugg kenn wéru kër goo dugg soxlawuñ xaalis soxlawuñ ceeb soxla wuñ dara mais nit bu amee sécurité bu feebaree faju rek kooku defal nga ko lu nekk li ci des nag moo koy ñaqal boppam yaakaar googu ñu ngi la koy wax looloo tax ñu ànd ak yow dinañ la jàppale nag ci luñ man ci ñi xamanteeg ñi ñi yaakaar ñi ñuy liggéey ak ñëpp dinañ la jàppale ci zaahir dinañ la ci baatin loolu moom bu am dara loo ci tiit campagne bi tamit dinañ ci def suñu alal ñu wara wax ak ñepp dinañ wax ak ñom dinañ taal suñu auto yi kep ku ñu wara dem tamit dinañ wax ak ñom département bi tamit may bayé sama sama mbokk lañ dekk ba man lañ déggal na leen wax département bi kep ko fa jital nañ ko wotel fofu nonu waaw te fofu tamit bëgg naa nga ñëw fa xol liñ fay liggéey lan la ngeen jappalé leen bu waaw ma ngi lay gëna dénk jigéen ñi and ak yow Seyda Shafaaw ak Seyda Assa surtout Sawda mu ngi lay liggéeyal liggéey bu am solo waxtu wu nekk mu mu ngi bu ma ko ooyee mi ne ma ngi ci maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci contact yi maa ngi ci terrain bi ku la bëgg la te ku lay liggéeyal la maa ngi lay seedeel loolu na nga ko jàppale bu baax a baax te am naa yaakaar ne boo jëlee maire bi da ko jàppale li ma gën a neex ci yow nag mooy daara ji ñun ay nit daara lañ daara rek lañ xam te am na coow lu fi am fii ci réew mi gis nga ku ne xam na ko ñi ngi saaga doomi daara yi te wax dëgg fa yàlla du ci lii rek nga war a yem ëllëg timit bula yàlla mayee ndam législatif yi maa ngi lay ñaan yàlla ñu mel ni yéen nañ jóg taxaw dem ci assemblée bi dimbale diine ji dimbale doomi daara yi sëriñ buub ci ay kàddoom moom itam mu gërëm ko sant ko wan ko ne moom yitte bii nga xam ne moom lay ut utu ko pour boppam utu ko pour leneen waaye daf ko ut uniquement ngir baaxal Kaolack ngir delloo si Kaolack ca cosaani démbam waaye itam bu ëllëgee conseil municipal yi nga xam ne ñooy teew ci conseil bi duñu wax ne sëriñ boobu lañ fa teewal waaye conseil bi dafa naan man sama quartier laa fa teewal kon loolu mooy gestion bu participative boo xam ne askan bi kenn ku nekk da ciy gis ngay wax ci commerçant ba baykat ba opérateur économique ba nangam ak nangam li ñu ko mën a dindiloo rek mooy bokk ci mbir yi buñ ci bokkee ci mbir yi taxaw taxaw temm danañ ci mën a régler lu bari loolu moo ci dugal kon sëriñ mi ñu ngi sàkku ñaan ak sa engagement engagement bi nag comme ni ko waxee rek xam naa ne ku dem ba ci yonent bi di ñaan doy na engagement bi ki beneen bi mooy su noppee ñu ànd ak yow nga jàppale ñu ñu jàppale defar dëkk bi liggéey ko ndax mbir mi du mbiru sëriñ bu du mbiru conseiller mbiru citoyen yëpp la ndax kat maire bi liñ ko bëgg a doxalee du maire boo xam ne da ngay toog naan man maay maire bi man maay conseiller bi citoyen bu ne am na ci droit wax ndax loolu sax la loi bi wax citoyen bu ne am nga droit bind maire citoyen bu ne bu ñuy def ñoo di def budget wala ñuy def lu ñuy décider am nga droit teew xëy na amoo droit wote amoo droit wax waaye am nga droit fekke te boo fekkee dara nañ ko jaarale jaarul ci yoon am nga droit jël affaire bi yóbbu ko tribunal boo nee ne boo waxee ay argument fii niñ ko jaarle yoon tribunal da koy kaase gis nañ ko fi ba tàyyi kon citoyen yi liñ leen war a njëkk a xamal mooy ñu xam seen droit bis bu ñu xamee seen droit duutu naa dem ci maire mu dimbale ma naa dem ci diw ñu dimbale dañ naan na ma jox sama àq ooyuti kullu si xaqan xaqahu alxuraan moo ko njëkk a wax kenn ku ne boo jotee sa àq rek jàmm am jàmm am ci ñëpp réew tubaab nga xam ne kenn ku ne yaa ngi am sa àq déggoo fa coow déggoo fa dara waaw kon nag loolu nag la ñuy ñaan nga ànd ci ak noon ndax xam naa ne incha allah am nga xam-xam am nga gis-gis ah te incha allah bu ñu bu ñu bu yi incha allah xam naa ne ni nga ko ñaane moom yàlla dana ko nangu danañ fi dellu siwaat ñu waxtaan xool noo xam ne nii balaa yàgg ci programme bi ñu teg danañ ci gaaw def ci résultat ndax ndax ndax ndax ndax gis nga soppiku dara soppi mbir lu gaaw a gaaw la lu gaaw a gaaw soo déggee sax tubaab bi dañuy wax naan bilan cent jour ci cent jour yi rek la ñuy xamee ne yow da nga dem ak doo dem léeg-léeg ñu ne muñal leen ko jaru ko ci téeméeri fan yu njëkk yi ci ñuy xam ba xam da nga dem ak doo dem rek ci ni nga organiser ak ci ni nga war a demee te incha allah noonu lañ ko daan a defaree allah nii nii mu la ko waxee tamit noonu laa leen ko wax nee naa leen bu kenn jàpp ëllëg naan man maa fi nekkal sëriñ boobu man suñ toogee ci conseil bi ñëwuma leen pour ne sëriñ bu mu fi ñun ñoo fi toogal Mérina wala ñoo fi toogal coofak ndax loolu moo may dimbale man du ma mën a nekk fu ne ndax yàlla ci boppam am na kun fa yàkkoonu waaye nag dafa dafa jaan naa fi daal rek xalifatan alquran dafa yàlla dafa mel ne dafa dafa dafa am pouvoir ko waaye lu ne daf koo dénk nit lu ne am na ko ko ko yoral waaw kon nag loolu lañ jàpp délégation ma noonu lay noonu la ñu war a doxee mooy su ngeen xëyee lan ngeen war a toppatoo lan lañ mën def ba nga xam ne ni mi e, coofa gi jóg wote ji ëllëg suñu amaatoon cinq du duñ campagne ndax li may wax ne soo yoree dara ba war caa demaat di campagne rek defoo ko man wax naa ko bi ñuy wut chambre de commerce dama leen chambre de bu buñ ko doon renouveler su ma waree campagne rek jaru ko waaw kon man nekkuma nekkuma nekkuma te gëm dara rek. ci la la yàlla di dimbalee ndax tuuti rek histoire rek ma wax ci tuuti chambre de commerce bii li ma fi indi man bi ma ciy dugg gouvernement bi fi nekkoon moo ma ci pousse ba dugal ma ci ma dem ba ci biir ànd ak samay nawle ba ci biir ñu dugal ci politique woo ma ma toog ñu ne ma da ngay bàyyi ma ne leen mënu ma ko wax ma ne la kon ma ne la mënu ma ko ndax kat ànd ak say nawle wàcc Kaolack gi ñu dem ba pare ëllëg ñu ne da ngay bàyyi mun da nekk a ah, ñu commencé seen i mbir waaye yàllaa leen ëpp doole ah bi ma nekkee fii Kaolack ba liggéey fi ba pare ba liggéey fi ba def film pour liggéey président chambre de commerce ñoo ñëw ci boppam jox ma union biñ ma joxee union ma xool ne union ni muy doxee dakaar ni muy doxee jaaduwul ma bokkul lijjanti ñoom ñëpp ñu def ñu dal sama kaw dama mujj ne leen xaaroon man ne fi ñukk Kaolack ne leen Kaolack damay bàyyi Kaolack léegi Dakar sax laay ñëw nekk fa nekk fa nekk nekk fa fari bañ ñoom tamit ba xam ne lii dana jax dañoo dem boobu léegi lañ jaxase carte que ba léegi nanguwuñu élection te xam nañ te ay ponk la ko <laughs> ay ponk la ko tiimoon moo tax rek may xam ne loo jubal rek te doyloo ci yàlla rek yàlla dana la ci fekk waaw waaye lépp loo ànd doyloo wo ci yalla ragal ndax bamay dem lama kenn wax fi ne ma yow wax ki am nga fi ñepp da leen la fa lo jëlé risque nan da ngay da ngay dem Dakar ma leen man dama wutul poste dama dem pour défaré oustad ibrahim Diop mom kenn du wax moom mooy kan kenn du wax tollu wayam ci pays bi bu ci xam-xam bu ci liggéeyal adina liggéeyal askan bi yépp adina yépp xam ko diko ko koku nak kërëm lañ ñëw moy né ñëwuñ ci Moustapha Diop waaye yàlla mooy yàlla te yàlla nekk fu ne waaye booy wër teraanga yàlla fa nga xam ne fa nga gisee yow teraanga yàlla boo def départ fa nga jëm maanaam ci gàttal tey jii nii su ne woon añ dafa jot nga tumuraanke ci dëkk bi di wër kër yi kër gi nga añee woon démb bu heure bu añ jotee démb suba foofu ngay war a njëkk a dem kon fi ñu yàlla wanee teraanga foofu la ñuy mën a njëkk a dem muy suma xarit nag ñu bokk lu bëri bokk liggéey bokk mbokk bi

waxal man maa koy fekkee ndax yow waaye tamit ndax sëriñ euh, sëriñ bëgg nañ ko encouragé bëgg nañ mu nekk nekk na modèle mais modèle bi dañ ko bugg a wane ci àddina bi yëpp ba doomi daara yëpp yëg seen bopp xam ne lii mooy lii mooy lii mooy lii mooy parce que bët ki démb rek maa ngi am ñu ma koy waxat ñu kii mu ne ma ma commencé di leen wax ne leen ñun dañu war a seetaat suñu bopp mu foog ne damaa faral kii rek damay faral kii mën na ko mën faraluma kenn faraluma état contouruma ko mais faraluma ko damay wax dëgg rek mais li ma mën a xam mooy mënuma nangu ay transporteur yu Mali mun a développé kenn ku nekk développé seen bopp boppam bañ dem foo xam dañ gis ne dañoo war a ànd bañ des taxawal seen i entreprise amee car yoo xam ne moo dàq avion di wër mboolem Afrique mm-hmm. ci sécurité nga jënd billet fii benn billet ñu marqué ko dugal say bagage Nigéria ngay gisaatee say bagage foo war a escale xam nga ko xam nga temps bi nga war a def boo ko boo tardé ñu bàyyi la fa dem te loolu ay transporteurs maliens ñoo ko def ñun mënuñoo def loolu mooy mooy mooy li waral ñu tardé ku mel nii nag def lim def mooy wane ne am na lu état war a def waaye te population bi ku ci man dara ko war a développé ba mu àgg ci mën a tasaaroo jëriñ nit ñi laaj ko léegi ñaata nit lay employé ma ko nañ jël misaal ci Youssou Ndour parce que dama ko naw nañ jël Youssou Ndour misaal ci site Lamine mi ton doon waxtaanee man façon nit ñu ñooñu laa bëgg foofu laa yem wasalaam. Uras Info. xibaar yi gaaw. te Uras Info l'info à temps réel. Uras Info. jàngat yu xóot te notre force le traitement de l'info.